salaam sama gars yi daal leen ak jàmm sama chaîne YouTube bi ci vidéo bi nag euh, dama bëggoon ñu def benn petite configuration Eh, ci benn modem bu ñuy wax répéteur répéteur nag mooy lan soo ko déggee par exemple nga am kër gu ngant léegi wifi bi mi ngi ci salon bi par exemple da ngay gis ne soo demee ci yenn zone bi sa benn kër da nga dootoo amati connexion connexion bi euh, soit day yéex wala en tout cas doo ko capter même pas voilà léegi nag ak modèle TP link bi euh, répéteur bi di nga gis ne par exemple soo ko configurer foo mënti nekk ci kër gi da nga am vue voilà xam naa ne problème bi moom ñu bëri dinañ ko rencontré te duñ xam lan moo koy saafara soo leen jëndee lii rek da ngeen mën a élargir ci benn euh, payment bi ngeen di fay rek da ngeen a mën a am wifi bi fépp foo leen te mën te njëg bi seerul voilà mën ngeen a laajte euh, prix bi mais vraiment seerul ba pare da nga mën a am connexion fépp foo nekk sa biir kër. voilà yomb na configurer configuration naa leen ko A à Z képp koo xam ne am na problème pour tamit pour configurer ko mën nga ma koo laaj ci commentaire comme ça ma dimbale la guider la ba nga configurer ko correctement voilà bii nag benn euh, benn modèle la ma am na yeneen modèle yu yu yu kii ah, yu am voilà euh, vidéo bi tamit sponsorisé sponsorisé woon ko ah. pour muy leer vidéo bi dama dama am dama ko bëgg a def rek pour ñi nga xam ne am nañ kër gu ngeen la te am na benn partie ci kër gi tamit soo fi nekkee doo am connexion bi voilà léegi moo tax ma jagleel vidéo bi ñi nga xam ne ñoo am problème connexion ci yenn zone yi seen biir kër voilà léegi dañuy déballer euh, le produit voilà ñu déballer ko notice yi la day ànd ak ay notice bon au cas où soo amee problème mais nous n'en pas besoin léegi fii nii nag modem daa nekk nii voilà donc nekk nii voilà léegi comme la plupart au Sénégal soit nga changé nga jënd adaptateur bon man préparé naa ko am naa adaptateur mel ni voilà wala nga jël relance boo xam ne man nag am relance boobu nga jël rallonge boo xam ne comme bii lay jël voilà mais soo amulee rallonge mën nga jënd adaptateur yi cherul tamit voilà léegi su ma ñëwee amul loger adaptateur bi voilà gis nga léegi su ma ñëwee dama koy ñëw branché ko directement léegi nag dama koy branché foo xam ne foofu nga sentir ne wifi bi par exemple yéex na voilà xam nga des fois wifi bi soo connecté da xam fi nga xam ne soo fa toll wifi bi dana yéex léegi foofu rek nga jéem ko fa branché. léegi comme ça final bi mën a dem léegi nag ñaari façon nga mën a am pour Captcha soit nga utiliser mooy câble yi di nga xam ne moom lay eh, abonnement yi di orange soit orange wala voilà les autres comme Tigo ou Expresso wa ila nga utiliser Wave bi voilà Wave bi nag moom laa lay wax présent da ngay dem ba nga xam ne foofu la Wave ba faible nga branché foofu noonu pour mu mën a am en tout cas mu mën a capté correctement comme comme ni mu waree quoi léegi xëy na ñun suñ suñ ñëwee nii xaaral ma xëy ko ma taaraat bon waaw ma changé position bi voilà léegi ma xaar tuuti voilà mi ngi mi léegi fii nag suma eh, essence yi branché naa ko pare dañuy dem suma ordinateur bi pour ñu def configuration bi voilà man comme di ma la wax ci YouTube bi laay laay démarrer eh, laay laa koy defee parce que aw ma câble bi nga xam ne RJ45 la bu gudd boo mën a def loolu noonu léegi donc damay jaar parce que capteur bii rek capteur bi fii waa kay ñu continuer ko ci vidéo bi ci ci sama ordinateur. voilà léegi nag soo la ñëwee ci ordinateur bi da ñëw ci connexion bi fii nii. léegi soo leen ci connexion bi bon lii wifi bi la normalement dafa war a afficher TP link bon xaar ma fay ko taalaat ko voilà mu ngi nii TP link new connecté bon mën naa ko def nii rek mën naa connexion voilà léegi ñu xaar vite fait mu connecté voilà léegi connecté na su connecté da ngeen gis si notice euh, mu wax leen ban adresse ngeen dugal pour mu pour mu parce que modem bu nekk ak adresse am voilà ñun TP Link la ñu utiliser donc adresse bi mu wax la 192 168 voilà point 0 point 254 ci notice bi la nekk donc moom rek la ñuy tapé voilà voilà léegi su boobaa gis nga ci page bi ngeen di daal. léegi soo leen liiwee tamit dana leen jox euh, mot de page bi léegi fii dalay xam ne na nga créer mot de passe bon nga créer mot de passe boo xam ne yow danga ko mën a téye ah léegi man xaar ma créer euh, lu simple voilà voilà ma répété mot de passe bi voilà ma identifié wu voilà léegi soo créé mot de passe bi nga créé nag foog nga garder ko bu baax soo ko gàdduwul bu baax voilà doo doo doo doo ko mën a am euh, comment soo soo bëggatee modifier du du du mën a nekk voilà léegi fii nekk na français li y a pas léegi fii da ngay xool ban mooy sa wifi voilà lii ay wifi la par exemple Moustapha bi fekkoon xam naa code bi ci bii lu ñu koy testé parce que bii moo gën a nekk pôle moo gën a nekk ci position pour partager parce que soo xoolee benn baar laa ci am. mais yii yëpp voilà sama kër la ñaari yi sama ga sama kër la donc bien vrai que ñoom laa am kot mais j'aurais préféré am kotu Moustapha bi pour ngeen gën a gis puissance bi bi muy dégage da ngay gis ne carrément moo dem bi day xëcc bu baax connexion bi pare partagé ko voilà mais on fait avec ce qu'on parce que sori ma wifi bi lool voilà maintenant fii dafa lay laaj pour nga joxe mot de passe su wifi euh, bi bon xaaral ma joxe ko sama mot de passe bi fii voilà maintenant fekkee xamoo leen mot de passe bi fii doo leen mës a am connexion bi voilà il faut ngeen xam mot de passe bi fii ngeen def suivant gis nga moo wax la information yi ne la invité ngay connecté mot de passe bi invité voilà extra nga def confirmer voilà léegi fii dafa laaj benn question ne est-ce da ngaa bëgg ci répéteur bi nga yokk ci extension ou bien dangaa bëgg nit ki di connecté sans xam ci ban wifi la par exemple tey su ma dindee nii def ko nii même su fekkee ne modem bi ngay connecté doo ci xam dara même soo déplacé ci biir kër bi automatiquement euh, euh, soo demee bi amutoo connexion pour modem bi officiel bi ci répéteur bi moom moo la jox connection même soo defee nii tamit même chose la mais lii c'est juste pour nga mën a xam par exemple actuellement ci ban kii nga nekk ci ban zone nga nekk. voilà su la neexee tamit mën nga changer mot de bi nga ne par exemple fekkee répéteur bi la nga ne kon par exemple connexion bi euh, mais normalement bii sax waroo ko mën a def par exemple mënoo mënoo changer mot de passe mot de passe bu répéteur bi lay jël mais juste tur bi nga mën a changer tur moom par contre mën nga koo changer tur bi mën nga wax ne même su fekkee ne dafay connecté ak répéteur bi du xam moom ban lay connecté man l'essentiel daal moom mi ngi am connexion waaye xamul ci ban lay loolu mën na nekk. comme mën nga ko def ne par exemple turu répéteur bi ak tur bee du bokk bon ñun nag dañuy def en sorte que bon on va faire celui-là pour que ngeen xam ne configuration bi jàllal juste pour mais man bi ma leen conseillé mooy ngeen dindi ko mu ngeen def nii nga xam ne day jël même turu wifi bi voilà ngeen def suivant maintenant voilà léegi ngeen patienter voilà et terminé Voilà. Maintenant, là, je me suis connecté au réseau étendu. Terminé. Bon, les rares, voilà, rares terminé. Voilà. bon lii nag pour scanner ko parce que ab mën nga am application après du doon télécharger application pour ngeen mën di ko gérer avec seen téléphone loolu tamit lu mën a nekk la wala mais li gën a am solo daal mooy ngeen configurer ko configurer bu normal léegi xaar ma dugg Euh, xool ci ban laa connecté par exemple su fekkee ni bii laa bëgg a léegi par exemple mooy mooy biñ créé léegi léegi voilà voilà ma def nekk après ngay gis ne su ma duggee Google ak connexion bi day dox normal voilà léegi gis nga connecté naa ci moom léegi su ma defee nii eh, Google par exemple voilà gis nga su ma duggee par exemple Eh, YouTube sama chaîne YouTube par exemple sama chaîne YouTube voilà à l'occasion su fekkee ne li may def neex na leen maa ngi ñaan ngeen abone c'est simple bës leen fii activer cloche de notification ay le tour et ay jouer voilà en tout cas gis ngeen fi bi instant yaa ngi connecté ci répéteur bi et wifi bi mi ngi dox voilà comme ni ma leen ko waxee je préfère nag soo leen di configurer ngeen dindi extension bi nga xam ne même tour bi lay conserver tour bi nekk fii moom lay conserver fii nga xam ne yow sooy connecté fii ak fii du am benn différence waa kay jaa ngeen jëf sama gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yemale fii vidéo fekkee vidéo bi neex na leen ñaa ngi ñaa ngeen partage jàngi ngeen